international seneinfo.net dal leen ak jàmm ci seen flash d'information du mercredi 29 euh, novembre 2023 dañ koy dooree rek ci saisine bi nga xamante ne drogue dure bi nga xamante ne def nañ ko fële au niveau de la marine nationale ñu xamle ne euh, saisine de 3 euh, tonnes de cocaïne moom la marine nationale jël ci loxo benn navire étranger ñu ne à l'issue de cela am na 10 personnes arrêté nañ leen. donc bëri sénégalais rek bokk na ci ñi nga xamante ne jàpp nañ leen teg nañ leen loxo si wàllu drogue boobu nga xamante ne saisir nañ ko fële si marine nationale. Euh, lu gën a fees si xibaar yi rek nekk na euh, rapport d'arrêt bi nga xamante ne avocat Ousmane Sonko déposé nañ ko démb au niveau de la cour suprême ñoom avocat yi lu ñuy espérer rek mooy que ñu réintégrer waat Ousmane Sonko dans les listes électorales donc li mooy seen dernière chance suñu sukkandiku si yenn cas yi. donc euh, avocat yooyu depuis démb déposé nañ leen fële au niveau de la cour suprême ñu ñëw rek si beneen fànn euh, transport interurbain bi euh, comme nañ leen ko waxee BRT bi commencé na war na démarrer le 27 décembre prochain donc Sénégal réceptionné na plus de 100 bus donc au total 121 bus moom la ñu pour le démarrage du BRT chers internautes de Sénéinfo International li lañ leen indiloon ci seen flash d'information du mercredi 29 euh, novembre 2023 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi te di leen ñaanal yënd càmm.